tey jii bu fekkente ni nit ki dafa góorgóorlu eta fekk ko fa ak deureum muy deureum di doubal ba tabax di deureum di doubal ba tabax ba am magasin bo xam fa lay di deureum di doubal ba am euh, entreprise di ci tedd di ci teral yenen doomu adama bis ñew projet bi ñew ñu ñew xagn ko teranga jamu mu yep te ñu ni projet bi fay ñew di sukkali Senegal loolu dafa tay xel. jotaay bi. bañ koy door dafa fekk ñaari mbir am kilifa banque africaine de développement dañu ñëw Sénégal pour càmbar liggéey banque bi ak Sénégal ñu ne nañ ñëw visiter ay réalisation pour poukéré ci lu ñu def Sénégal donte def nañ fi ay milliards yu bare bare instant bi nga xam ñoom ñu ngi visiter projet yooyu am na ay ay ay ay jigéen ay borom kër yoo xam ne seen àdduna dafa yàqu te dara tegu loon ko loolu Banque africaine de développement agence France développement ak seen ñooñ ndaxte banques yooyu dañu am ay ay politiques yu war respecté pour bañ a lor ñi nga xamante ne ñoom la ñu bëgg a jàppale moom la ñu bëgg a indil projet développement yooyu ñu nekkoon ci lëlu ñaari fan pour préparer sunu sunu jàkkaarloo ak APIX pour mu saafara lu mot junne ak juróomi téeméeri famille yoo xamante ne dans la question dafa te dara ko loolu train express semaine la conseil d'administration banque africaine de Dakar Nous bëggoon ñu gis beneen euh, euh, banque africaine développement ci que respect

li ko nit ñi di wax lañ ko rapporteel ni ko ni loolu moo nekk loolu yépp dara du ci dëgg la vérité et la li tax bailleur bi valider suñu plant dafa gis ni lii dafa yanu maanaa bu fekkee nag ci fii dëkkul nekk sa àll ba moo mën a dem ba xam lii ñuy wax dëgg la rawate ku jiite suñum réew defe naa ni moom moo war a am gën a am information képp koy am fii ci Sénégal mais nag dañu gis ni li ñu jàpp ba tey mooy dëgg gi lañ ko waxul ndax un président yaakaar naa ni du seetaan indi projet bu toll nii def ci alal ju ñu toll pour ñuy ñëw di noot askan bi di ne xaalis bi di ko jëmale feneen ci ñu dul ñi nga xamante ni ñoo ko moom. li ñu bëgg mooy président mu xam ni. li ko nit ñi di wax lañ ko ni ko ni loolu moo nekk loolu yëpp dara du ci dëgg la vérité est là li tax bailleur bi valider suñu plainte dafa gis ni li, dafa yanu mana. bu fekkee nag ci fi dëkkul nekk sa àll ba moo mën a dem ba xam lii ñuy wax dëgg la rawate ku suñum réew

réclamation mo fi nek loolu du caaxaan te des na parce que sunu loxo tay mënul ñu maté ñu mëna xolaat xoolaat ñëpp am ñu bëri ño xamante ñi ñu ngi ci yoon bi di takk seeni bagage di ko indi manam di ñëw di di di part di indi seeni réclamation kon jéxagul kon donc li ñi bëgg moy conciliation bi ñuy dem manam ñun dañu porter plainte pour état waxtaan ak ñun ñu tok waxtaané mbir mi fii du yobuna tribunal on veut les amener à la raison tendre la perche pour nous régler ce problème social niñ koy defee nous ñu Nous devons nous Nous quand même président une intervention ba conseil interministériel cinq conseils interministériel faut fa nous tous ñun nag dañu am suñu droit xam ko am suñu alal xam nañu def ba am ko fowuñu ci réewuñu ci kafuñu ci bu fekkee état du Sénégal mënta def li nga xamante ni moom la signé ci bailleur bi ñun dañ koy yóbbu ci li bailleur bi santaane ni pour ñu jaarale ko fa